yow mi ah, jour xaqiqatan nga tey lan ngay wax. waaw dañuy kontaan rek ñëw parce que fii tamit suñu fief la ay banlieusards lañu ñëwaat ci biir banlieue bi fon nañ fi donc football nañ ci banlieue bi alors c'est une fierté pour ñun ñu ñëwaat fii ba pare gis fi say nawle loo xam ne a bokk même métier bi ngeen def nga ñëwaat fii fekkaat fi gars yi pour ñu war a kaf war a reetaan loolu moom ça fait plaisir quoi vraiment. mais wax dëgg yàlla suñu mbokk internet Bari Bagages TV namu lañ la lool c'est la première fois tey ñu jàkkaarloo ak tey ñoom ñooy seetaan match bi ak euh, ban promesse nga am par rapport ak score bi nga ni tey Aba ñëw si forme macha allah. li a wax daal mooy waa Thiès ñooy gañe <laughs> ay Thiès waa dañ tey waa ñooy gañe <laughs> ñu taawee nii mais yàlla dafa dogal aussi du artistes yëpp am possibilité boobu pour nekk tout ensemble donc xéewal bi ak tawféex bi mooy lii dafa baax dafa jot ñun artistes yi ñuy demlante di gisante di weccante ay xalaat euh, di di nekk ci ci condition yu nice te genre match yi dafay tax ñun ñu bégalante ñu bégal suñu bopp aussi parce que tamit mën ñu moo tout le temps dëkkee di bégal askan wi mais ñun aussi il ñu bàyyi xel suñu bopp quoi donc tey jii dañ ñëw pour bégal askan wi mais aussi pour bégal suñu bopp pour bégal askan wi waaye aussi tam pour bégal suñu bopp waa Dakar non Thiès mënuñu fii ñu gagné la leen jox nañu reer ba pare naan suñu ndox yu sedd ak affaire yooyu après bëgg a yóbbu victoire bi ngane la gi daal xam nga fa leen <laughs> buñ duggee daal faayet ñu ah. dóor leen ñu leen ñu incha allah arnaque la leen fay bàyyi nag jàmm naga naga naga noonu bi yéen eh, maa ngi laaj maa ngi laaj ki ngay filmé maa ngi laaj ki ngay filmé ma yàlla baax na waaye après si kanam mi damay live waaw aja ñoo siyaar naa pare ngeen ah dañu ñëw it mooy sama boo tax ma ñëw di ko seetaan si non man eh, man grand so eh dugal moom mooy waxal xaaji mu ah, borom lu rose bi bàyyi ko borom lu rose jeexagul gis ngeen ma ma ñëw bu leen jugé parce que grand journal numéro 10 la te fi tey ji su ma teelee wane sama bopp cat baaxul te technique bi maam xam nga dañu gis ne pata la mais ñu ni pata mën ta fubal mais dinaa leen ne pata war naa mën a fubal dijee lu garaaw laa wax ne tey laay sama bopp waaw mooy bu ma jot nag bu fekkee ne am na nit ñu fi ne rek war naa am mooy mooy téer yu fi ne bu dee am nañ fi naa am mooy xojot après bi nii diggante artiste lu rafet la lu rafet la wax dëgg yàlla nekk loo xamante ni dafay dafay dafay boole parce que tey ji lii dafay wane ne rek artistes ñoo bokk ndey ñoo ñoo ñoo bokk baay ndax lii dafay wane ni ñu ñëpp ay gaayen lañ amuñu amuñu xaar ma yàlla te lii dafa rafet moom mooy defar diggante yi kon lu rafet la rek ñuy ñaan yàlla yàlla musul cat ak sayt waxtaane ñu nekk ci jàmm ak ci salaam waaw. ku yor xooy. ah ku yor xooy. xooy est-ce que du Jean Michel wala gars yi est man Dakar la man ñun Thiès la ñuy dajal. man Dakar la bi 3-0. waaw dina leer ba kanam. léegi lan ngeen bëgg match bi. bala naka maa ngi sant yàlla baax kay. maa ngi jégalu maa ngi leen di nuyu bu baax dama yàkkamti. da nga ñëw pour football wala nga ñëw pour. pour damaa ñëwoon pour football. Ah. bi may wàcc escalier yi léegi maam déchirure donc mënatuma football waaye li leer ba leera leer grand Yves maa lay ziar Dakar laa dëkk Dakar laa màggee mais Thiès mooy gagné. ñett bi moo am ci match bi ñett yëpp waa Thiès a koy dugal ce qui signifie que dina ko dugal kaam. foo teg loolu. <laughs> Baye day luppe dugal kaam. mais moo mën. da ngaa xon Baye wala. non non du question xon bu yëpp waa Ba waa Thiès ko indi mais Baye dina dugal camp. mais Aba fële la nekk côté Baye. waaw moo tax nag Aba dèjà bopp bi dinañ ko jaawale bal bi nax ndal bi <laughs> dèjà loolu benn cas la. benn initiative bi fu mu waaw initiative bi mi ngi jógee ci euh, Séni ci rasin ak ci Laye Sow. donc muy ñett ñoo xamante ni ñu ngi œuvre ci avancel art bi moo tax lii boo xoolee rendez-vous du donner di recevoir la boo xamante ni mën na tey dajale artistes yëpp mën na tey dajale mbooloo moo xam ni tey képp ku am projet fii tey ñu ma fi dajale ñëpp ay projet lañ may wax kii naan ma soxla naa la ci lii ma naan kii soxla naa la ci lee donc rendez-vous du donner di recevoir la boo xam ni match bi alibi la rek mais euh, link yee ci ëpp solo franchement mu ngoog loolu la daal. ànd ak satisfaction di wax ñi ñun ñëpp nañ dem yéeg fee taxaw supporter waa Thiès Thiès gagné yóbbu ndam li football pour lan yàlla. waaw maa ngi lay fay Abou. tey ngeen def ah, affaire am solo mooy match bi nga xamante ne tey dox na si artistes yi nga xamante ne mooy artistes Kees yi. ak Dakar yi. tey initiative fu ñëwee. initiative bi bon mu ngi jógee entre Seyni ak Gora mais la fois la première muy am nag euh, Arcos Guédiawaye moo ko porté woon par la suite ren Covid bi moo tax amul mais après après après la ko booy yi gis ne affaire mu ngi bëgg a naax ñu jël ko kon loolu yokkute la quoi. waaw loolu la quoi. ah yëg-yëg ngeen ci tey waaw yëg-yëg bi mooy fierté rek euh, parce que lu dagg lu nekk moromam lay fekk ji la fekk que Dakar ak Thiès waa Thiès nangoo dagg seen i ay activité pour ñëw rejoindre si waa Dakar kon loolu yokkutee la sant nañ ci yàlla bu baax a baax maa ngi wax ni tamit yàlla moom fi am quoi voilà ñu ngi waaw maa ngi la koy delloo yow sama waay nga yow sama frère nga waaw waaw jaajëf jaajëf gis nga ngeen def entre waaw mais xam nga euh, en fait lii dafa don lu nice parce que ñun ñëpp benn lañu. ñoo bokk Sénégal bu ñu dëkk ñoo bokk métier bi du dëgg. donc euh, lii dafa waroon di en fait dafa war a am chaque instant. warul di gëj di am. dégg nga juste que. temps moo amatul a feebar beeg tout ça. mais lii dañ di war def à chaque instant wane ko carrément que ñu artistes ñun ñoo far. dégg nga c'est une famille. voilà. xalaat bi waa mu jógee xalaat bi waaw loolu nag bu ma lay nga laaj ko ñoom Max Dia ñoom ñoo gérer affaire boobu noonu. ñoom ñoo tëgg match bi non bii bii te dama dugal ay bii ay bii dugal bii waaw tey deux bii laan deux bii. <laughs> deux <laughs> waaw dafa mel man luñ ma liggéey day toj ma tey dinañ gis score bu garaaw 22 1 mos nga koo gis 22 1. Thiès dina dóor Dakar 22 1. non Aba dama xam dañu xam buñ ko jëlul day tumburanke waaw ñee ñee boo leen xoolee xam ne boo leen xoolee xam dañoo nagam ah. ñee dañoo nagam waaye dañoo xorom loolu buñ leen dañoo mel ni ko xorom dañoo xorom ah, vingt-deux un di nga ko gis tey maa la ñamal lii <laughs> ni may damaa yéex a ñëw moo tax mais as xanaa loolu booy góor moom nu muy demee ah tey nekk am na tey lu nekk am na fi lu ah lu bari lu diis sa sakkan waa Thiès tey naa leen dooru dooru métti. ñaata bii nga pare. ka doon. yaay ah bi yaay gardien bi. waaw ah, dinaa dugal benn. ñaata bii dugal kon. dinaa dugal ñaar kenn du ma dugal dinaa dugal ñaar. dinaa dugal mais gars yi lay seetaan. waaw ah, mbokk yi wax ni one love bëggee naa leel jàmm si yéen macha allah macha